رأسا من التالنا وفيها جام من سارا إن الذين إلى سرزار خلق صدا سيارة فارخوا دارين أو سارا إن الذين إلى سرزار خلق صدا سيارة فارخوا دارين أو سارا أحمد صلى الله عليه وسلم gisuma way yu mel ni moom ca taar ba kum neex na wax tey borom xam-xam la da doomi soxna jaara tey sori na la kum neex na yëg min ba tey di xutba nda kañ daragal xam-xam ba dem na kum neex na yëg min barba tey di xutba nda doomi soxna jaara tey dem na ku baax ka dem na nga ne la dem na ku baax ka làqu na ngëmeen ya jeex na Ahmadou Diarra Mbacké sa dem gi metti na lool waaye fu ñu jëm àdduna ci weet na